sabbal leen baay barahama jërëjëfe baay war nañu la la la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 jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci jëmmam nuyoo lislaam nuyoo malaaka yi nuyoo waa aljana ci biir aljana bal mooy nuyoo yàlla muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu gannaaw ñu ñëwoon ci ay leeral ak yéen ndax kuy jub jëm ci yàlla di ommat ay jaam jëme leen ci yàlla duñ say taalibe nag waaye say tegtal say jàngale ak say wax jubloo ci mooy ommat leen jëme leen ci borom bi ak ci ngërmandem sa dund war naa leer sa taarix war naa leer nit nag mbiram dañ koy jëlee ci moom waaye war ko jëlee ci ay noonu mu ko jëlee ci ñi nga xam ne <clears throat> yàqal ko lañ jublu guddi ak bëccëg kenn muccut ci jaan man caaleen bàyyi laa bàyyi laa nu wax ne kenn muccut su doon kenn dina mucc yonent yàlla waaye wax nañ ko lu ne ci yaar su doon kenn dina mucc Cheikh Ibrahima mucc ndax wax nañ ko lu ne kon nag nee na ndaw tuumaan nañ ko du ci jamono boo xam ne ay atam soreegul <clears throat> waaye mu muñ jàpp ci yàlla su doon kenn dana mucc yàlla mucc ndax wax nañ ko it bu ne ci alquran kon su ma nekkee ci yoon woowu di dégg yenn kàddu yi di jugee ci ñi nga xam ne foogoon naa ci ñoom leneen lu dul loolu mais sant yàlla bu baax a baax xam ne yoon yi moo mel noonu waaye leeralal soppe yi pour ñu xam fu ñuy classé ñenn ñi ak yenn wax yi sama diggante ñoom li ma njëkk leeral mooy man Aboubacar mu ngi tudd Oustaz Bachir Thioub balaa commencé jàng téere majlis yi eh, ma jox tariqa tijaan moo ma tarbiya ma nekk moom ba génn dem kaw Kaolack doon continuer sama jàng ma ne ma képp koo gis muy taalibu Baay mën nga faa jël xam-xam xama demee rek léegi naa fi benn waay bu ñuy wax Sharif sëtu Yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la moom moo defal seet muy bokkoon ci jamaa Coor naa man Njaay moom Sharif boobu doon doon taalibu Cheikhul Xeyri chérif boobu doxal na mu sell ci wàllu faydu nii rek mooy mooy suma jaar-jaar sama bopp nag kër Seydaan yi la bokk Seydaan yi jàngal na xamal na ko boromam gannaaw ga nekk nag imam Assane Cissé tey mu ngi Cheikh Mahi ak imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé am ak ñoom relation bu ko yóbbu sax mag jox na ko ijaaza sama bopp foofu Medina samay maam foofu jàng bi ma nekk mën naa wax ne bàyyi ma ko sant ndax ba may jàng sama mbébét mo doon doctorat rek mooy tax mu bàyyi yàlla mu def ci diggante bi ma doon jàngale te diggante bàyyi radiallahu anhu warnaaw mu ngi tarax taraxlaay comme kuy xarmal aj daal di solu sax mbaxana di jàpp toog kër benn kër boo xam ne ni kër bu yaatu la di jàpp moo gisee ci buntu kër gi ma ne waaw kii mel ni bàyyi nañ dugg ziyaare ko moom waxee ñu rek moom mu dagg njàppam la jël ab yar yar boo xam ne nag leer bu weex tàll la comme sondeel amul jëmm ñëw dóor ci gannaaw ne maa ci dem leen jàng ba léegi laa ne jàng du ko bàyyi mukk lu may ba mu duggee ci laxaat ci loolu laa nekk <clears throat> sama gis-gis ci xam-xam mooy lépp loo xam ne ni bàyyi wax na ko wala mu bind ko man pour man wér na te du ma wuuteeg moom bu mukk su ma waxoon benn masala ñu ne ma bàyyi waxewut ko nii nga ko waxee ma génnaa ne ne dama juum loolu mooy sama gis-gis ci xam-xam sama tur yi ñu may jox muy Babacar Thioub wala noo mën a wooyee su bàyyi ñëwoon ne tuddoo noonu mu wax nañu ne tudd ma noonu suñu waxee ma ne leen laaj leen sama waajur dana leen wax tur ma bi ma tuddoo jëlee ñëpp lii lañ ma woowee suñu laajoon samay waajur mu ne noonu laa tudd te bàyyi ne tudd ma noonu ma ne ko danga ma fàtt dangaa fàtt nag tuddee woon waaye li bàyyi wax noonu laa mel ak Cheikh Ibrahima radiyallaahu anhu yàlla def ci man fiiraange diine koo xam ne bu ma commencé jàng la nekkoon ci man ustaas yi ma doon jàngal ku ci juumaan ci masala dama yëkkati sama loxo ne ustaas du noonu nii laa ko gisee mos naa ci am bis def imlaa ma bind shijaraat ustaas mu ne ma shijaraat baaxut ci arab ma indil ko ci waxi arab fu shijaraat ñëwee ustaas boo këram dafa mer ba dama yow bu kumboo jotee zéro laa yem ma dem këram neexal ko ba mu wàcce loolu si suuf loolu yàlla moo ko def ci man sama waajur yu ma jàngal jur ma bu yàgg ñëw na fi wax ak man benn masala yàgg na ca waaye la mu wax gisuma ko ànduma ci moom te loolu moom xam na ko ci moom <clears throat> loolu lépp yàlla rekk tax ma di def fiiraange diine bu yàlla def ci man te mënuma ci dara loolu kese yàlla dimbale na nag alhamdulilah rabbil alamin samay ñi ma xam xam nañ loolu ci man xam nañ bëgg xam-xam gi ak wax rek te yàlla tax su ko defee noonu laa mel loolu wax ci bàyyi nag ne lépp loo xam ne ni wax na ko rek gëm naa ko waxuma ko rek ndax daf maa neex waaye dama ko wax ndax yàlla xamal na ma ci moom loo xam ni keneen bu ko xamoon gis-gis boobu rek ci moom loolu nag maa ngi si yàlla bu baax tey tey xam-xam amul kenn benn wax booy wax ci wàllu xam-xam lu mooy ne rek da ngaa wóolu nit wax nit rek la ko moom rek ne lii mooy lu wér man nag bàyyi bi nga xam ni xam naa ci taarixam dara di gis njabootam xam mbindam dégg kàddoom xam ci ay karaamam dara bu ma amul ci moom confiance nan laa demee di am ci confiance ci ab naar boo xam ne nii dañ maa wax rek man mosuma ko gis xaw ma sax njabootam xaw ma sax fu mu dëkk xaw ma fu ko denc su ko defee loolu mooy gis-gis ci xam-xam képp ku ma gis nag loolu Cheikh Ibrahima nga nag koo dindi wala dafa mag ñi nekkee woon muy saxaaba yi ak mag ñu baax ñi ñu njëkk ña nga nag koo dindi dana leeral li junte leeral yooyu nag dafa am ay nit ñoo xam ni dañ cee jugee pour yàq sama der guddi ak bëccëg suba ngoon lu ñaar lu ñuy wax ci man baax na nag ma leeral pour ëllëg samay njaboot ak ñi nga xam ne yàlla def na cofeel sama diggante ak ñoom xam fan la ñuy classe ñooñu xam lan moo tax ñuy wax ba duñ gat ci seen mbokk mi nga xam ne nii dégg nañ ci moom loo xam ne nag suñu noonu la bu yàggul defoon naa débat benn mbokk DTV eh, ci Sahih Bukhari ndax li wér naa wérul waaye man li ma jaaxal mooy mbokk moom problème bu mu am rek dugal ma ci te man sekkuma moom dara benn preuve buy dëggal lii muy wax ci man guddi ak bëccëg suba ngoon dana wax ne dama ko añaan dama ko noonu dama ko yaaxal te amul benn tegtal amul benn preuve man sama guddi ak sama bëccëg ñooyam moo tax lu ma yaaxal du yomb soo ma doon peese sax man dama naan la yàlla nee na yonent bi nee na da ngay këram da ngay mujj ndax liggéey lu mu àdduna wutuma ko mos na wax ne <clears throat> dañoo bind benn xasida ci moom ke bind xasida bi ci moom dégg nga ne ma ne ko kii waroo bind xasida ci moom te loolu amut te loolu kam wax ne moo moo moo bindoon xasida bi weddi na ko wax ne ma ne envoyé naa ko vocal na ko li nga jàpp amut te gannaaw ba weddi googu amee déggaat naa kàddu yooyu ci moom ak ci ci ay nitam ñi di ko wax te xam nañu du dëgg foofu la fa amoon mooy sama benn mbokk boo xam ne waajur lañ ma tuddee moo ko statut ma gis statut bi ne kii kan la ñu waxtaan ci ma ne ko dégg naa dafay wute baay loolu moo parce que man du may siiw rey waxam du may siiw rey vidéom lu ma jot lañ ma ko sànni sama whatsapp ma ne ko dégg ma numéro mu wax ak moom ci wuuteeg bàyyi googu loolu moo ñu boole gannaaw ga ma dégg ko mu waxtaan benn waxtaan ma déggee ci ne mu ngi jam waxtaan bi mu ngi jam saxaaba yi ma leeral ne Abu Bakar mooy xalifa yonent Yàlla Muhammad mu def ci waxtaan moom it ne dama koo jàppal xeen dafa am lu dox suñu diggante mel ni dafa am loo xam ne daf koo xam mën koo génne maa ngi gën ci yàlla bu mën a génne ci man dara na ko génne te du ko génne bay laa yóbbu parce que man xam naa ko ma jëm xam naa fan laa teg sama tànk xam naa may kat du génne mukk luy war ne dama ko añaane du génne mukk luy war ne dama koo jàpp ngeen lu mooy débat yi ñu séq man ak ñoom jeex te loolu débat xam-xam la séq naa kooku sax sama waajur su ko defee wax yooyu dafa doy waar ñaareel ba def naa fi waxtaan ci benn groupe bu ñuy wax bul jar ak doon défendre saxaaba yëpp benn waayam jël ko envoyé ko waxtaan woowu moom mu wax ca wax ñu ñaaw ci man ba ne man damay xas Seydina Ali ba ne moom débat boobu bu ko fekkee woon ci alxuraan lay duggoo man bu noppi yàlla def audio yi ma jot duggoon na bul jar ak ñoom ñëpp wedd nañu loolu mu wax amut du dëgg sos boobu moo sol du dëgg amut ci ne man may défendre saxaaba yi mooy dama na xas saxaaba yi defe naa sax mos naa ci def benn waxtaan fii ci happiness eh, happiness TV leeral sama position si saxaaba yi ak wax bi ñu wax sax ne dama doon xas seet naa loolu moom moo ko wax groupe boobu yëpp te ku jàll ak seet nañ loolu moo ko wax ci man te du dëgg te kat ab jullit jàng na ne xibaar boo jotee da nga ko a gëstu ba pare door a tuumaal nit ki débat boobu muy wax ne bu doon man lay wax ak dana wax man ci alxuraan ba mu noppi ñëw na wax ceeg man nga ëpp waxtu mu faa wax dara lu leer bal sax ci la mujjee ji ne waru ko indi fa la mujjee te xadis yi la mujjee yoo xam ni ku ko indi sax kenn xamul mooy kat ku ko ci téeram kenn xamul man jàpp naa ne du xam-xam moom wala ñooñu waaye coow. ak par parloo moo ñu boole dañ mën a toog di waxtaan dégg naa ko toujours nag danay wax ci man lu xew mu tuumaan ma ci wax na ci Cheikh Cheikh Ibrahima laa mu ci wax ba juumloo ko ma tontu ca la ko ca dal dal ko ca ñu tuumaan ma ci ne man la man damaa mën a damaa xam ñuy dóore damaa dajale mbooloo bañ ma ci tuumaat def ma mooy tontu ci xam-xam te loolu moom sama rôle la ci waxi caaxaan yi du tax mu bàyyi waaye loolu tuumaat la ma ci loolu daloon ko ci gannaawam ma ci te loolu yàlla xam na ne du dëgg ay sos la bal sax su toppoon la ma ko doon digal ne ko bàyyi wuuteeg Cheikh Ibrahima loolu du ko ci fekk waaye topp ko ba loolu fekk ko ci yàlla woon ko ci tuuti lu koy junj rek mu tuumal ko li mujj nag <clears throat> mooy la mu wax ci Seydina Omar ibn Xattaab man du ma fekk kenn la nga reere te fekk soom nga reere wax joo xam ne pour moom nee na loolu ñàkk teggin la ba mu paree la man sax laaj naa ko ci loolu moom naa tontu tontu moo ko ma laaj ko ci ci xaasam waaye waxul moom mukk la ma ñu wax ne hadiis yi wérul ba mu paree la mu layee mooy ne moom dafa bëggoon hadiis yi ñu wax si moom noonu wérul na boobu dégg nañ la mu wax mooy ne hadiis bi ñàkk teggin gi ci nekk ci lay wax. ndax ba si biir waxtaan boobu avant waxtaan ngay jeex daf cee leeral ne xadis bii rek waaye nag xadis bi wérul wala leerul ko ci su fekkee leerul ko ci kay ko tontu am su fekkee leeral la ko nag kon wax ma waaye daal alhamdulilah moom sant naa ci yàlla ndax jot naa waxtaan boobu bu ñu wax seet naa ma mu naqari ma lool ma wax ceeb moom ci xaasam ne ko bëggatuma tontu rek ñu am lu muy nëb waaye bëgg naa yi wax daa ko mos ñu waxtaan suñu ñaari rek. woo ko téléphone jërut waxtaan naa ci moom xaasam mu tontu lay mais lay yëpp dégguma ci sax ne dégguma bi wérul laa la ma ca déglu mooy liy confirmé la mu ko defee ci gars yi ca tontu maa ngi leen di gërëm di leen sant ci leeral gi ñu leeral ne Seydina Omar ku baax la ku ragal yàlla la ba moom ci boppam war na ne Seydina Omar ku baax la ku ragal yàlla la loolu li mu bëgg noonu mooy xadis bu wér ñu ngi sant yàlla bu baax ci ci loolu waaye foofu dafa am tuuma mu fa teg suma kaw ndax moom lu xew rek mu boole ba ci man yaakaar naa rek nit bu fekkee li li muy wax dëgg la ne moo la xaree kanam kanam warul am temps sax di wax ci yow yow yaa waroon di wax ci moom waaye kenn mosul dégg ma ne moom maa ñaare wala daf maa soxore wala daf maa nangam mais moom ku ko jege rek xam ne xolom bi am na lu ci nekk jëm ci man jàngoro laa ba pare dama ko sànni guddi ak bëccëg waxtaan boobu mu doon waxanteeg ña ko doon tontu ci Seydina fa wane ne man ak moom débat bi ñu seqoon damaa jugoon pour toroxal ba pare yàlla wan ma loolu am koy teg ngeen déglu xaritam bu ko jege wax na ma ne débat boobu bañ ko jàppee dañ koo wax ne ko moom ci bu neen daan def ni defoon sang njaay mu ne dana xam ne melu ma ne sang njaay te wallaay kenn fi ñëw mënu kenn wax fu ma waxee wax jooju du que ñoom miin nañ tolo xalaante miin nañ wax ngir wàccee nit mais man damay wax ak teel tax débat boobu la ma cay leeral mooy waxtaan woowu nga xam ne yàlla defoon na la jigéen ci ñun ñaar ana lan la ci cubb waxta du noonu xam nga bañ paree am na ñoo xam ne nii xam naa nañ mel ci man ak lañ war a wax ci man sax balaa ñuy wax ndax lañ ma yàgg a wan ak fu ma jaar ak ñoom ci yàq seen daawaay yi nga xam ni yépp neen la bañ pare bañ ci commenté lu ñuy wax ci bu yoo xam ma xadis rek lañ lañ mën wax wala da ngaa soxla wala nga koo jàppal dara seen wax yëpp ci man loolu la waaye ana lan lañ wax ci débat boobu ne lii wax naa ko te wéru bañu wax ne yàlla na ma loolu moom ba léegi kenn ci lii nga wax te te moom ci biir plateau bañ taxaw wax na ne juróom ñeent eh, ñeenti junni nit ñoo jëlee Sahih Bukhari ci imam Buxaari ma ne ko juróom-ñeent fukki junne nii mu insisté ma insisté ma ne ko demal ci muqaddimatu Fathul Baari mu noppi ci biir débat bi da ngeen fa gis muy wax ma ne du noonu amul lenn lu mu wax mu ne du noonu que man yow ma xam-xam internet samay laaj bu laaj internet boo gisee ñoom ñëpp ku ci jàkkaarloo man su ma laajee nga gën laaj mu nekk ci googu ndax jànguma ñàkkam googu boo gisee buñ wéetee ni ñu amee fit ci wax ak ci yëkkatiku ak buñ jàkkaarloo man ni ñuy nooyee du mu wax mukk bañ tegg xoolal débat ba débat bi jeex waxuma mukk mu tegg parce que xam-xamu internet la ñor su ma sori woon su ma waxee ñu teggi mais suñ jàkkaarloo su ma waxee duñ teggi te man suñu waxee ma teggi débat boo xam ne yow am nga sens cuqati lu la neex indi te waa ji préparé wu ko ndax débat bi dina wax Sahih Bukhari wér na wala wérut waaye waxuñu woon ci ne moom dafay jël xadis sàngam rek indi xadis bu ko neex mu indi su ma amoon loolu ci moom benn xadis bu mu ko indi leen na ko wérul te préparé naa ci moom moom mu taxaw xadis bu mu indi indi naa ci tontu ak ay leeral yuy wane ne xadis bi xadis bu wér la ak la ci borom xam bokk na ci niil ak furaat ba léegi boo demee sahih muslim imaamu nawawi wax na ne seen cosaan sidratul muntaha yàlla mën na koo dawal nag ba fu ko neex ci suuf yow nag gis gi nga gis dara ci suuf ci cosaanu niil ak furaat tekkul ne foofu mooy seen cosaan imaam nawawi ne loolu sharia ba ñu ko xel ba moom mu ne loolu xel nangu ko ma taxaw ci débat boobu wan ko ne ko yow amoo niveau pour dajji xadis te mboolem ku mos a dajji xadis danañ xoolee yaay kan am ñu ay parparloo ak supporters yoo xam ne bëgg nañoo wax a wax wax wax wax wax ba la man débat ba te débat ba dafa naa man bañ ci génnee ki ma àndoon xam nga lan laa ko dama ne ko lii bu fekkee leeru Sénégalais yi jàngee mu si dara dara mu su leen moo tax man du ci commenté waat waaye nag dama dégg ñu di ci wax lu bëree bëri bëri gis naa ñu dalal ko ci même télé am ko wootewaat ñu duggaat ci même débat ma gis ñu di ci di ko répété di ko répété ba tey jii nii mu ngi répété waat mbiru débat boobu te mun wax ma ci dara xam ne ko débat bi am na fu mu leen toll am na lu mu def ci ñoom naqari na leen waaye man def ma dem dara damaa leeral rek te taxaw naa jàkkaarloo moom ne ko yow xam-xam bu war a daañu hadis nekkul ci yow wet bu ko dafa confirmé ne moom xamul dara te bu wéetee daf naan moo ëpp ñëpp xam-xam bu leen neexee ma tegal leen fii waxam ñu mu wax ne maa leen ëpp xam-xam maa leen nangam ba may nangam nangam mu leen te bu taxawee sama kanam dafa mel ni taalibe buy jaay du waxee noonu ba mukk parce que xam na ne bu waxee noonu du waaye waxtaanu ma ëpp xam-xam te boo jàkkaarloo borom xam-xam yi doo ko wane loolu xoote la boo xam ne amul lay wa dawaawi maanaam tuqimu alayha bayinatun abnaaha adiya ay woote rek maanaam maa fi dox dàq mën naa togg ceeb léegi ngeen lekk waaye nag matt moom xaw ma ko safara xaw ma ko gaz xaw ma jumbo xaw ma xaw ma ma dara ab saako ceeb la laa am loolu du dëgg maa fi dàq te xadis balaa nga ko mën foofu ma mën nax nga ne waaye mënu ma nax luxa noonu mën te xadis balaa nga ko du dëgg ñoom xam nañ ne naxe buñ indi buñ jàkkaarloo ak man mu leer nañ su ko defee nag loolu moo tax ma gis benn noonoo boo xam ne nii ak benn yenn boo xam ne dëgg dëgg def naa lu ne pour fay ko waaye mënu ko fay laaj ko ndax mos naa toog rek woo ma ngir jox ma te man ko ba tàyyi pour jokk bu yàggu rek moo ci mujj ban dajee kaw rek maa ko gis nuyu ko jëlaat numéro woo ko téléphone laaye ko biir waxtaan ak moom def naa effort ba sonn waaye nit bu nu noonee ba pare bëgg yàq sa der dëgg-dëgg bu yàggee noppal ko rek moom mooy kër su ko defee ñi nga xam ne ni am nañ cofeel ci man ak mbëggeel ci man nañ bàyyi xel boobu bu baax a baax xam ne dëgg-dëgg am naa ñoo xam ni tey suñu sañoon du ma fa te man xam naa si dara def naa débat DTV ci wàllu Sahih Bukhari wér naa wér ba ma paree ba ma tëddee am na lu ma gis si néeg ci guddi ga damaa jug dóor ko ndaw samay xarit mën nañoo seetlu loolu samay soxna mën nañoo seetlu loolu man tëdduma rek dina raw loolu mën naa ko delloo fu mu jógee waaye def ma ko ndax man du ma lor mi def sama loxo du ma lor mi def sama làmb lislaam rek ma ñor moom rek lay aar moom rek lay protéger am na ñoo xam ne nii gëm naa ne li nekk seen xol ci ñu jëm ci man su fekkoon ne yàlla lu rek lay topp du ma fii sax di wax jóge naa bu yàgg su ko defee nag ñooñu laa bëgg xam ne xam la ne dëgg-dëgg la ñuy wax ci man dara dara du ci dëgg saa yu mel noonu dafa am fu ñu jaar rek jaaru ñu mooy ci débat rek à loolu maa ngi gën ci yàlla ne mënuñoo indi lenn loo xam ne ni mën naa seede ab jëf ju ñaaw wala wax ju ñaaw ju jigéen ci man jëm ci ñoom loolu mosul am euh, li may mujjee mooy taalibi bàyyi ma bàyyi loo leen xel nañ tegwaat ci yoonu bàyyi ak ci njàngaleen bàyyi borom xam-xam yi dafa am lu ñuy wax ne ñaari borom xam-xam bu ñu wutee jëlal waxi ki gën lëng waaye kii xamul ak ki xam bu ñu wutee ko noo def waxi kan nga war a jël waaye borom xam-xam la woon boo xam ne nii soxlu ku ko tazkiya ndax ak siwam doy na jëfam doy na ndax Baye dafay wax Cheikh Baye Niass ñëw weddi di Baye wax direct wala indirect ñu gëm Cheikh Baye Niass weddi Baye Niass déedéet lii am na benn groupe WhatsApp bu ma ko wax bu yàgg ma yéen a ngi weddi seen i sëriñ ci seen yoon wii ngeen aw ak seen façon waxin bi te yëgu leen waaye man bokkuma si ñooñu ba mukk whatsapp du yóbbaale jamono du yóbbaale bu ma weddi sama njàngaleem sëriñ ndax xam naa mooy kan Cheikh ay waxam boo gisee loolu xam boole moom daf ci am yoo xam ne dafay weddi Cheikh Ibrahima Niass radiyallaahu anhu weddi bu garaaw sax te yëgu man yooyu laay defante. moom wax na ne am na xaddis yoo xam ne banu umaya ñoo fi indi mu nekk ci buxaari nit ñi seetluwuñ waaye boo nee borom xel mu ndaw sax da nga xam ne lii wéru jógeewul ci yonent yàlla Muhammad sallallahu am ci xaddis boo xam ne sax nee na loolu la muy tekk mooy yonent bi loolu la wax ne xaddis boobu la bi maanduwut kon xaddis boobu wéru loolu jox naa ko ci leçon yu leer nañ ñi kërëb waxtaan bi nga xam ni moom lañ fi doon def waxtaan boobu jeex jëmul fa benn waaye xol boo xoolee xol rek da ngay xam kii nan la mel boo waxtaan bi paree ba ñu tàggatoo lu moom moom dégg ngeen la mu wax la mu lëndëmal ne question question yi ma laaj ak tontu ma ci dara te yéen ñu seetaan yëpp xam ngeen ne xadis bu mu wax wax naa ci dara te préparé wu ma ko dama ñëw rek mu cuqate lu ko neex may tontu. loolu xam nga ne bu jàngul moom ko te la mu wax yëpp boo delluwaatee da nga koy gis borom xam-xam yi wax loolu andiwaat yeneen lay yu gën a leer ci xadis boobu xadis bii lim ci wax wane ne ñàkk teggin la ñaawal xaq yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la te borom xam-xam yaa ngi wax da ngeen déglu bu baax baax a baax. حديث بيمو واخ جامكو نويو حديث لي فنت دا لا فاي نياول حق يونت بي تلا موي تيك مو يونت بي مانول حديث يويو باي نيا صلى الله عليه واخنا تي تا باي مو وخو صاحني البخاري يي واخ سي يونت بي باي رات ني يونت لي لا ديف سي تفسيرم لغي مين moo tax keroog laaj naa ko mu ne ko waa léegi xadis yi ngay jam suñ suñ àndee yow jam ko ba pare dem fekk bàyyi wax loolu moom lan lañuy wax dañuy wax ne bàyyi dafa juum yow li nga wax mooy dëgg wala yow yaa juum li bàyyi wax gën a xam bàyyi yonent bi wala yonent bi bàyyi moo gën a xam cheikh cheikh cheikh bàyyi moomu yonent yàlla Muhammad ak ñàkk teggin buy soxal yonent bi ñàkk màndu lan la koy bàyyi di waxee ci yonent yàlla Muhammad sallallahu te xamu ko ci téere bii rek muy tafsiram bii gis naa yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy xubbu ba bi ñu yokk ci xadis bokk ci bàyyi ne dajeeg naag jëmmi xam-xam bàyyi ne yàlla jagleel la ko xam-xam ak sopp ni ko ba lu mu ne noonu muy noonu bàyyi ne xam naa yonent bi xam ngoo xam ne su ma dajaatoon moom du yokk ci moom dara su fekkoon dund naa ma yokk ci moom dara xanaa kay la yokk xam lu mu wax ak la mu waxut ak lañ ko sosal fekkee moom bàyyi xamul loolu bañ ay nit sos ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam loo xam ne la muy tekki mooy yonent bi maanduwul ba pare bàyyi bind ko ci téeram indi ko comme noonu ñëw ne yonent def na nii ak ay soxnaam lan la ñuy wax ci bàyyi bu ndëggale Cheikh Cheikh Baye weddi gi ñu weddi bàyyi parfois direct la parfois indirect daf koy waaye boo demee ci mbind bàyyi da fekk la man weddi bàyyi saxal ko loolu la moom mu ko jàpp boo xoolee demee ci tafsiru bàyyi bi suratu nisa riyaadu tafsir page soixante-dix dégg nga fekk bàyyi di wax ci walan tastati'u an ta'dilu bayna nisaa bi mu firi laay jooju ne kaana rasulu sallallahu bàyyi na yonent bi nekkoon na yegg moo ihdaa ashrata imraatan doon dajale fukki jigéen ak benn kaana ahabbahunna ilayhi Aïchatu bintu Siddiq kim ci gënoon bëgg mooy Aïcha doomu Abubakar Siddiq loolu la bàyyi wax ولكن كان يعضل في القسم نحن نقولون سيد الآية أفضل معنى وإذا قسم شيئا بين النساء يسوي الانسباب بوي سيد لدرجة ديجن تسوحني دفع يعمل تشري ويقول من وحنا ما هذا القسم فيما أملك فلا ترني فيما تملك ولا أملك من يعلم لي مويس مسد لتشري مومو بن ما يدتي لو خمنا يا مومو مومو mu ne fa kaana sallallahu alayhi wa sallam laa yajuuru bàyyi na yonent bi du jéng mukk wa yaxdiru da daan maandu fil xismi ci séddale dàqal na ko jéng ba pare saxal histoire bii Cheikh Baye di dàq ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te Cheikh Baye ngeen histoire bi bu saxee ci yonent bi maandu te bàyyi saxal na ko ci yonent kii yoon bi nekk dansé la lii muy wax na ko ba bu fekkee bëgg ñu ko jàpp bu dul loolu ñun danañ ko weddi rek bàyyi ne annabi laysa lahu baytun yonent bi amul kër. إنما إذا كان نوبة إرضاهن يأتي لبيتها فقط من بكين آية ينطل يوشنيكو وإذا انقضت نوبتها انتقل إلى غيرها كوك آية مجيخة ينطل بدم شكنا كان يدور على النساء هكذا وليس له بيت رسول فقط ورسول لا يبني بيتا من إذا نوبت شدقن تجيغر مني بكي آية جيعة مدم شكي أكي آية جيعة مدم شكي نحن ينطل ينطل تبكر وكان الصحابة يفهمون إسوا بنوشة ما يبدو مني bàyyi sahabi saxaaba yi déggoon nañ ne an na hadiyatan ne hadiya boo xam atat nabi sallallahu alayhi wasallam fi bayti aïchata yakunu nabiyu ashaddu farahan biha min kulli hadiyatin mu ne saxaaba yi xamoon nañ ne hadiya bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadiya boo joxe yonent hadiya ci a bég soo ko joxe hadiya ci beneen néeg nee na saxaaba yi xamoon nañ loolu wa kaana ansaar yumsikuuna hadaayahum ba Aïchatu aye ñu door ko indi ci néeg Aïcha président jaar loo ko te Aïcha jaat hadaya mutakaasira mu ne ayam Aïchatu bu ñëwee ak day bëri lool président kaana loo ko te xëy na faqat na zalika mu ne ñeneen ñi buñ ayee dañuy ñàkk addiya yi ba kullu maa jaa fi loo ko te ihdaahunna ne kenn ku nekk la ñëw si sa aye ci wàllu addiya yaa ko moom te saa way xamoon nañ ne addiya bu ñëwee ci jamono bi nga xamee ne Aysatu yonent bi moom fa ayee ci la yonent bi gën a bëgg soo addiyee ñëwee ci ne keneen saxaaba yi dañ seen addiyee ba Aysa indi eh, aye ñu jox ko bàyyi dafa nettal ne lii xewoon mu ne ictama nisaawu nabi fa shakaw na min dalik baax na Fatimata bint rasul sallallahu alayhi wa sallam bi ila bika quli lahu ya'dinu baynana mu ne jigéen yonent bi dajaloo tawat loolu yónni Fatima na ko demal sa bàyyi na ko na maanu si suñ diggante ci doomu Abubakar Si moom nag li jigéen ñi wax la jàpp ne loolu mooy tekk na yonent bi maanaam fekk jigéen ñoom ñoo wax lu waaye yonent bi waxu ne mu maanaam faatal mu ne faatama ñoom wa qaalat annisaa arsalani ilayka yas'alnaka an adla fi binti abi bakar qaala laha anti binti laa yanbaghi laki ila an tuhibbi ma uhibbu faqat Fatima ñëw ne ko jigéen ñi ñoo ma yónni ne na nga maandu ci doomu Abubakar bi sa digganteeg ñoom mu yónni su ne ko ma ne ko yow sama doom nga dara yellul ci yow lu may nga bëgg li mu bëgg xaalat naam wa zahabat mu ne ko waaw daal di dem moom fàttali سألتها سألناها الجواب فما ردت لهن جوابا أرسل أرسلنا زينب بنت جحش فتكلمت لرسول صلى الله عليه وسلم فما رد لها جوابا فتكلمت كثيرا فما رد لها جوابا فتكلمت في عائشة سببتها قال عائشة فسرت أن سئل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل أن يقبل أن أرد عليها أم لا حتى رددت عليها كلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنها بنت الصديق قال عائشة فعلمت أن رسول صلى الله عليه وسلم يرديه أن أرد على زينب فردت عليها حتى سكت مولاي بغينا في جيجين يونس بي يونس زينب بنت جاش مو واخ يونس تعالى محمد صلى الله عليه وسلم بري يونس الفارو مو واخ عائشة دار تيكو عائشة نعم ما يقول يونس بي نعم بغينا مطول تم دين مولاي مطول تم بين بارك يونس نكو نكو دانا خمي دوما بفكر جيلا ولا bàyyi sax ba mu koy firi ci olof daf na def na ko ñaw da nga xam ne doomu Abubakar ji la noonu la ko bàyyi waxee ci olof ne Aïcha ne ma xam ne yonentu bëgg na ma tontu ma tontuwaat ak Zeynab tontuwaat ak Zeynab bintu ne saxul ci xel dafay tekk ne yonentu maandu bu ko tubaab yi ñu mer bàyyi mi gën a xam yonent bi te du tàqali ko moom benn gendeem yonentu di ko corriger ci xadis ak nangam nettali na loolu ci xaq yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xanaa kon bàyyi dafa xamul lan mooy ak teggin ci yonent moo tax la waaye moo xam ne mooy rek xelam bi moom baaxul moom toll waaye xelu bàyyi gis xam ne moom na xam na ne lii moom lu wér la ci xaq yonent bi ba da koo nettali jël responsabilité nettali ko boppam léegi yéen taalibe bàyyi lu ngeen bëgg a wax yéen ñi nga xam ne yéen ngi wax ne nañ bàyyi kii mu wax lii muy wax dégg naa bu muy wax ne li muy wax Cheikh May ànd si nangam nangam Cheikh May ànd ci benn wax boo xam ne dafay weddi li bàyyi jàngale te man xam naa Cheikh May kat bu baax waaye loolu mu wax du dëgg Cheikh May ànd ci benn wax bu weddi li bàyyi jàngale bal sax boo laalee bàyyi jot nga xol ndax bàyyi rek la bëgg mu lay nooy loolu daf su bëggee ci kanam Cheikh May du dëgg lii ne lu ñàkk teggin la ci yonent bi sallallahu alayhi wa dafay ñaawal suura yonent bi sallallahu alayhi موي ني تفسير بي بولن تستطيع ان تعدلوا بين النساء باي موم دا فتي ريسبونسابيلتي في ري القران ولا اللي خيونا سي ديغنتي يونتي اك جبر مع صحابي نيارل بي موي باي طالب نتيري رفم ملا دي ورا ني اج لخو سونو يونتي اندي سي شيخ باي نينا حديث نيو سي اج لخو بن يورتي مانام حديث باي واخون مون دا رغوت ndax da ngeen a bëgg man ma man man mi nga xam ni soldaaru Cheikh Ibrahima radiyallaahu anhu di soldaaru lislaam ak diine muy tilimal li bàyyi indi te ne taaliba bàyyi la man ma di ci nopp du ma ko def bàyyi indi nee na xadis yi andi na ci ay xadis wane ne lu wér lu wér la parce que ne ko ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa di ko layee yow nga ne li bàyyi indi maanaam xadis yu bële wérut mooy dàqal nga bàyyi moom yu mel su ko defee loolu man foo mu wàcc te am na beneen xadis bu mu dàq sax kooku loolu kenn plateau ba ñu ne dafa moom dàq na fa xadis boobu mooy dégg nga baytul maqdis ak kaaba la seen diggante ñeent fukki at la من يوم يوم بقرة وخم نفنة ابن حجر الأسقلاني بوم اللي حديث بوم لأن ابن حجر الأسقلاني لأن ابن حجر بوم اللي حديث بوم حديث بوم هو إشكال يمفو لن تركت له ولا يتجانك ابن حجر بخل الموني فتو الباري الباري باس 457 ci al juzu sadis ibnu Hajar daf ni ibnul Jawzi moo ne hadis bi fii ishkaal ndax yonent bi tabax na Kaaba ga ndax Ibrahima tabax na Kaaba ga Suleymaan tabax baytul maqdis sa diggante Ibrahima ak Suleymaan am na lu ëpp junni at moom su loolu rek la sukkandiku ne hadis bi kon kenn mënu koo dëppale maanaam man mu gànnaa ci lii mënuma cee gàggantiku kenn gàggantiwu ci ba pare ñuy wax ay débat bi leer naam leeru si bi débat bi waaye ibnu jaw ibnu xajar dafa tontu xadis boobu wane ne tontu bi mooy baytul maqdis ak kaaba ga yépp aadama moo leen tabax seen diggante ñeent fukki at ñeneen ñi dañoo def tëj ji rek beesa wane na it yaquba wax nañ ni tabax na baytul maqdis su fekkee ibrahima tabax na kaaba Yaqubu sët Ibrahima tabax na baytul maqdis seen diggante mënu mat 40 dañ koy loolu anam la guñ mën a wéralee hadis yi Yonent bi sallallahu alayhi wa su fekkee wér na ne baytul maqdis ak Kaaba ga yëpp maam Adama moo ko tabax dégg seen diggante mënu mat 40 ans waaye hadis boo xam ne am na ay anam yoo mën a jaar ba mën a ba diggante bi mën a mat 40 ans yow nga ne déedéet. wérul parce que anam gii moom boo ko ci jaaree wérul te te eh, anam gi parce que anam gi saxul ci xel diggante Ibrahima ak Souleymane lu ëpp junne ak dox na seen diggante kon xadis bi mënu wér ku la wax ne dañ laa wax ne diggante tabax Ibrahima ak Souleymane bi moom moo nekk 40 ans fan la yonentu waxee lu ci xadis bi yonentu waxul lu ci xadis bi daf ne diggante baytu maqdis ak kaaba ga mën na 40 ans nu mu matee ans loolu mu jàng mais ko ba pare mu di ko ngeen ne naa ko bàyyi muy dàq xadis ci nii kanaa xamoo ne su doon yoon rek bu ma def ak bu ma def ak moom débat ci loolu xam nga nan laa waroon defee moom débat mooy yow xamoo dara demal jàng mënuloo dàq benn hadis waaye nit doo ko tëbal classe kaay wax ci loo xam ne sa xam-xam yëgul fa ñu may la ci yow mi nangoo dem di wax ak moom ci loo xam ne xam-xam yëgul fa sax yaa ngi koy may loo xam ne jaaduwut la nga waroon wax ak moom la dem jàng hadis bàyyi ci moom layal la ko te moom daf ko dàq boo demee ci. kitaabu tafsir bu Cheikh Waye si suratu Ali Imran dafa gàgganti jalaal ba pare lay wax jooju nu mu demee ne ne eh, innama almalaikatu banaw alkaabata qabla xalqi aadama bi alfay sana mu ne malaaka yi tabax kaaba njëkk aadama si ñaari junne at malaaka yi tabax nañ kaaba nga ñaari junne nga ko tabax wala maa xalaqa laahu صار يحج هذا البيت وبعد ذلك أمره الله ba yàlla digli Adama mu ba Adama tabaxee Kaaba nga aj na ko ñeent fukki at yàlla doon koo digal mu tabax Baytul Maqdis lii bàyyi wax moo nekk ci borom Fathul Baari indi kon bàyyi war na ne aadama moo tabax baytul maqdis moo tabax kaaba ga seen diggante 40 ans Cheikh Balla loolu moom wér parce que diggante Ibrahima su Ibrahima moo tabax kaaba ga Suleymaan tabax baytul maqdis seen diggante ëpp na junni at loolu rek mën a am te fekk ñee dañoo beesal kaaba ga rek fekk ñu dañ koo beesal waaye tabaxuñ ko hmm? su ko defee téere yi nga xam ne nii lépp ñàkk jàngoo ko waral ñun ñi nga xam ne yàlla def na ñu ci maydaan bi xam nañ lu wér ak lu wérul ak lu borom xam-xam wax ci ko seetaan sëñ bi mu naan lii muy xam ni boo demee suñu téere sëriñ fekk ko fu mu ne wàtt man danaa def loolu ñetteel ba mooy Abu Taalib moom nee na safar la jëm ma dégg naa mu weddi sax ña wax ne ah kii ko nee na àjjana la jëm ñu wax ne safar lañ jëm wedd na leen wedd bu métti Baye wax ko Baye wax ko jël si responsabilité boppam moom mu weddi leen weddi bu méttee méttee métti métti métti métti métti demal si tafsir alquran bu Cheikh Ibrahima radiallahu anhu moom dafa jël responsabilité mu wax lu xew ci laay moom firi innaka laa tahdi man ahbabta walakinna laa yahdi man yasha daf ne laay yi mu wàcc ci yonent bi xiir gi mu xiiroon ci gëm ak taalib bàyyi taxam mën naa ko firi ci arab waaye daf damay bañ mu gën a gudd daf ne laay ñu ci moom la wàcc mais moom loolu dafa dàq loolu ne laay ji ci loolu wàccu ci gëm-gëmu abu taalib ca bàyyi saxal ko yaa ngi dégg mu ne abu taalib dafa bëggoon yonent bi aar ko ci xéefiru Quraysh dundam lépp tàgg ko dimbale ko ko lu baax bu ba mu demee bay waa ji génn àdduna yonent bi dugg ci moom na ko yow sama bàyyi tam waxal laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullah benn baat rek ma layal la ko sa digganteeg bëgg naa la bëgg naa lépp loo bëgg waaye damay bañ waa Quraysh loolu mu wax mu ne ba yonent bi génn te tuddul baat tuddul baat seede gannaaw nga Abbas ñëw na wax na ko yonent na wax ma bàyyi ne haada huwa saxiihu fi imaan Abu Taalib bàyyi ne fi imaan Abi Taalib bàyyi ne lii mooy li wér ci Abu Taalib maanaam gëmul yàlla mu ne am na ci borom xam-xam yuy wax ne Abu Taalib gëm na yonent bi bàyyi walakin saxiixa anna si wax ne waaye li wér mooy Abu Taalib dee na te tudd baatu seede loolu la may wax mu ne suuya Rasul sallallahu alayhi wa sallam laaj na yonent bi ne ko Abu Taalib kaana muhsinan ilayk amaa in foo ala ci yàlla Abu Taalib danaa def lu baax ci ko na yonent ne waa ankay wajadtuhu fi qaari jahannama fa axrajtuhu xatta axraja min annaar wa baqiyat qadamaahu faqat ala

ba pare nag yow da ngay weddi yëpp ne wat sa téere seen ñu déglu ko bu baax a baax wax jooju bàyyi ne li wér ci imaam Abu Taalib mooy tudd ñaari baat seede nga ne yow la wér bal ay nàngam la la ci wér mooy Abu Taalib gëm na waaye léegi ah léegi boo paree boo ñëwee noo ko layaatee ci waxu bàyyi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Aysatu ak soxna yi lii doxoon na seen diggante nga ne loolu dafay tekk ne yonent bi maandu ku ko wax mooy wax na yonent bi te bàyyi wax na ak yeneen ak yeneen ak yeneen man. li may défendre xam naa te du ma bukki bu sàngoo di bëy li may wax dafa leer nañ sama zaahir ak sama baatin benn la munoo wax ne lañ la jàngal mooy ne bu wuteeg sa sëriñ bi la juumte la taxaw publiquement ne sa sëriñ dafa juum te ba léegi yaa ngi continué di dajji ay mbir yoo xam ne nii mun sa téere sëriñ mel ni wax naa ceeb moom li ma sama problème moom bis bu bàyyee man bi bàyyi Cheikh Ibrahima di la bàyyi muy dajji di ko dajji dajji naan si. daaj ji ba pare danaan man bàyyi laay liggéey bàyyi laay nangam te yaa ngi daaj di wut mbiru bàyyi ah naa ne ci bu ko bàyyi nekk ci jàmm mais tant que mu ngi ci man ak ngi nuyu di ziare ñëpp di bu baax a baax di leen xamal la daal sama yoon mu ngi nii liggéeyal yàlla ak yonent ba am na ñoo xam ne nag man xam naa ne am na lu ma jàppal dara taxul ñu jàppal ma ko lu mooy xam ne ni seen woote arrangé wu rek فين ما عندي كلام واتبو بيا سلدار الشيخ ابراهيم لا سلدار التاريخ بلا سلدار الاسلام لا سلدار الصحابه لا امنا في رامي ماتي لول فين ما عندي كلام مو دار يلا رك سوغدي رك ما عندي نيب دي زياره كنور الاسلام استطاعت ما توفيقي الا بالله توكلت عليه saa yu ñu déggee wax yi rek classé leen ko ci ñi nga xam ne nii suñu sañoon du ma fi fanaan te bu mu leen déranger ngeen wéy ñu ànd jëm ci yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sàbbal leen Baay Barhama jërëjëfe Baay war nañu.